tey coalition Diao 2024 moom moo ñëwoon tey yónni ñu ñu déposé ñu nag informaticien bi liste parrainage clé bi ak les documents yi nga xamante ne mooy ànd ak candidature bi yàgg na parce que depuis huit heures on est là mais il y avait aussi d'autres coalitions qui étaient là alhamdulilah satisfaire nañ exigence yëpp ba joxaale nañu convocation pour le 28 nga xam ne coalition bi mooy ñëw ñu procéder tirage bi à partir du 28 29 ñu commencé dépouillement yi pour xool ndax parrainage yi conforme na ou pas. ñooñu ñu tey ni ko yoon tënkee euh, dépose dossier boo xam ni dossier bu complet la. pour candidat Abdoul Mbaye Abdoul candidat Abdoul mbay nag euh, dafa am benn coalition bu ko boot euh, ñu tuddee ko Abdoul 2024 donc doon nañu tey déposé suñu dossier euh, nangu nañu dossier bi parce que dossier bi il est bien defar nañ ko ñu ñu ko waree defar euh, yombul woon waaye voilà def nañ ko euh, sant yàlla